أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه بوكي فونداسيون مام الحاج روحان غوم رضي الله تعالى عنه سين بوكوم طالب سين خريج سين صوفي عبد القادر غوم مولين دي نيو زيار دي لين حق ñaan suñu boroom fa tabarakallahu yàlla na yàlla dool li ñu jàmm xéewal ak sutura bu baax nuyu ñëpp ci àjjuma ji ñaan suñu boroom àjjuma ji ñu jëm nii muy suñu farata ji yàlla na ko yàlla nangu ak bépp farata boo xamante ni fas nañ ko yéene defewaat gannaaw gi incha allah te ji mu tombeek àjjuma di ñetti fan ci weeru février muy le 3 février 2023 macha allah ñu fas yéene dellusiwaat ci suñu bindu muqaddimatul asiya di jaajëfalit mbokk yi nga xamante ni ñoo ñuy déglu fële ci YouTube boobu muy Ciné Vision TV incha allah ku bëgg foofaat boo ko jotee di nga jot waxtaan wi incha allah. ñoo ngi nekkoon ci suñu muqaddimatul aziya xam ngeen ni ba nekkoon ci page cent quatre-vingt-douze dars bi weesu wala leçon bi weesu wala njàngat mi weesu ñu jàngoon ci jëmoon ci wàllu sëy tàmbali woon bunt bi fa tabarakallahu bo waxoon leen maanaam lan mooy sëy ci wàllu wax rek buñ ko waxee noonu te sharia du gogul moom lañ doon leeral dars bi weesu waaye nag nan la ko sharia gisee ak nan la ko sharia tudde soriyantoo wuñu ndax bu ngeen gisee ni fële kat nañ ko waxe woon daanaka mooy sutura rek ndax bu ñu waxoon ni nakaxatil xasaatu axfaafal ibli wala ñu ne nakaxa annawmu al ayna kon sutura rek moo taxoon ñu tudde ko noonu ci wàllu waxin bu dee wàllu sharia nag kon yaa ngi gis ni kon foofu lañ jamoon bu dee wa fi sharia sharia nag bu dee yoon wi nga xamante ni buñ ko waxee moom la lislaam rëdd ni ci ay nit di ànd ci nii loolu mooy sharia xaqiqatan ca dëgg-dëgg daal kooku moom dañ koy def fil aqdi ci pas-pas lay doon boo xamante ni majaazan nag dañ koy abal pas-pas boobu fil wat i ci sëy mooy lislaam moom xamul ñu góor ak jigéen buy ànd ci wàllu sëy te kenn takkul sëy ba loolu mooy lislaam xamul góor ak jigéen buy ànd ci wàllu sëy te kenn takkul sëy ba ñi nga xamante ne nekku nañ ci lislaam nag ñoom la plupart fa ñuy araamale lañu fa ñuy teree sëy rek ñu ni kii mineur la wala boog ndaw si waa ji àndandoo ak moom bëgg sëy ak moom ndaw si ni dafa bañ mu forcé ko ñu di ko tudde viol mais à part loolu ñoom dañoo gis ni góor ak jigéen bu ñu waxtaanee ba d' accord bëgg def seen rapport man nañ koo def looloo waral sax nga gis ñi tey ci mbedd mi di jaay seen bopp ñu leen di protéger parce que loi yooyu moo leen protéger nga xamante ni tey ndaw si am droit moom dem wut am kartam bu gor yu baax yépp tëddee moom mu bàyyi ba guddi mu dem taxaw fenn yor kartam ni day jaay boppam ñii ramasse nit ñu guddi buñ ko fa fekkee mu génnee kartam ni man am naa droit jaay sama bopp ñu ni ko demal jaay sa bopp góor gi tamit am droit moom génn këram ni dama soxla kuy jaay boppam mu dem jël ko àndandoo ak moom ci sëy te ñoom ñaar kenn takku te te sëy amu fa baatu takk amu fa lislaam na bu ñu gisee moom mu jël baatub wata ñu di ko tudde nag euh, ànd ci lislaam moo tax ñu tudde ko fi charaa l'islam mom indi ay normam ni gor gi bala muy am droit and ak ndaw si day dem ci ay kilifaam ni ki dama ko bëgg kilifa yi ni ko waaw ñu dajalo waxtaan ba d'accord ndaw sa bëgg waaja bëgg ñu dajalo fenn def pas-pas ba am lu ñu yëkkati loo xamante mom moom la ñuy tudda dot ñu koy wax can mu am ñoom ñaar ci seen diggante ñu teg ko loolu la ñuy tudda dot fii ak loolu amul ci Islam, sëy munta dagan ci l'islam noo ko mën a defee nag dafa xaram tifaaqan loolu tax sax lislaam indi ci ay ay règle ni képp koo xamante ni yàlla def na def nga lii te jaare la woo fii lii ñu wax ndegam mësuloo sëy nañ la door téeméeri yar bu fekkente ni mas nga sëy lislaam kon ne nañ la rey parce que yaa tegg yoon wi nga xamante ni moom lislaam teg te dëgg dëgg dëgg dëgg nag mbokk yi lii kat defe naa buñ doon wax civilisation lii mooy civilisation mais jóge fële ca mbedd rek salsalu gàtt <coughs> wala yaa xam dajanteeg benn waay ci mbedd mi mu waxaaleeg yow ba juboo yéen ñaar ngeen ànd tëdd ba pare mu fay la sa xaalis nga dem xam ngeen ni loolu ngoor sax nanguwu ko nag fa tabaarakallaahu waxuma la ak lislaam moo tax kon pas-pas boobu kon buñ nee majaas fi moom lañ ko abbal ci wàllu sëy kon lii rek la lii rek mooy majaas mi fa tabaarakallaahu qaala wax na baaduhum lenn qaala malik baaduhum lenn boroom xam-xamu fuqahaa yi am nañu wax mu cité ci ñiy wax kan la imaam Malik borom ngir mi nee na an nikaaxu day sëy mustahab dañ ko sopp imaam Malik nee na sëy dañ ko sopp am na ñoo xamante ni farata la ci ñoom góor gi nga xamante ni bu takkul soxna mooy yàlla par la force dem seeti kookee ne woon ca mbedd ma ànd ak moom kooku farata ci moom pour mu takk pour mu wekk pour mu fekk boppam ba mañ a def loolu nga xamante ne moom la ko lislaam di tere ki nga xamante ne nag moom nee nañu bu takkee ak bu takkul yépp moom du ma yàlla kooku mustahab la ci moom maanaam dañ ko sopp ci moom waaye nag bu ñu jëlee la nga xamante ni moom la sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni denc leen ci jigéen ñi am ci ak njaboot ndax bu ëllëgee damay tiitaroo xeet ya nga xamante ni sama kanam ñuy ëppalante xeetu yeneen yonent yi kon yonent bi dafa santaane rek ni def leen yàlla it noonu la ko indi fan ki aw waaw fan ki huma taaba muy amru ibaax la kon amru mustahab la ndax am na ci am na ci yo ndeysaan moo tax yenn saa yi nag sama classe nga xamante ni yàlla dogal na seen àlli wa sorowul ñuy daanu ci amru boo xamante ni mustahab la muy amru ibaax am amru boo xamante ni laazim la am na ndigal yoo xamante ni par la force la mais am ndigal yoo xamante xam nga ni kullu washrabu fële ca koor xataa yatabayyana lakum khaytul abyad min qabl aswad min al fajri suma atimu sima is ni dénga siyaama ila layli mais kooku amru ibaax la amru mustahab la waaw waaw amru mustahab la lekk leen ngeen naan mais ki bëggul xëdd ki nga xamante ni bu xëddee xër ñeeñ yàlla sant ko ni ko par la bu ko defee kon fa tabarakallahu ñu bàyyi xel yu loolu bu baax a baax a baax kon santaane googu ko yàlla santaane kon borom xam-xam yi kon dañoo gis ni amru mustahab la mooy ndigal la loo xamante ne dañ ko sopp mu ni nag waxtu li fa wuute nañu fii ci moom fii zamanina ci suñu jamono ji ba muy bind téere bi hada ji am nañu ni fa qaala wax na baadum lenn ci fuqaha yi borom xam-xam yi nee nañu day tarkuhu bàyyi takk soxna muy sëy wal istixaalu ndax soxla woo ca yooye jamono bil ibaadati ci jaamu yàlla lu tax mu xaafata adamil qiyaami dangaa ñaga ragal ni doo mën a taxawe bi xuquqi zawjati ci àq yi nga xamante ni moom nga séq ak sa soxna ci wàllu dund dëkkal ko dëkko ko bu fekkente ne danga nga yaakaar ni yow àq yooyee mënuloo koo def ñu ni kon toog bañ a say afdalu moo gën mom la ñen ñi wax bu la wóoree ni yow daal boo takkul jabar doo mooy yàlla waaye nag boo takkee jabar it wóor na la ni ay àqam mun loo koo satisfaire ah ñu ni koon yow li gën ci yow kon nga toog jaamu yàlla te nga bañ a takk ñeneen ñi wax xaala baadum ñen ñi ni eh sa wuju dem takki soxna kët afdalu moo gën ndax santaane gi ko yàlla ak ak ak ak yonent bi santaane waxoon naa leen dar jële ci dars bi passé ki ñewon ci yonent mu laaj ko mu ne ko nangam ak nangam mu ne ko man rahiba an sunnati falay sa min nii defe ni ya, ngeen ko fatu leen ko waji tak soxna bu fi joge ndem bëgg na tak soxna way tahiduna farlu fil halal ci lu dagan mu ko ni mom li mu bëggee tak soxnaam daara lu amu ci ma qadara lu mu man bu wóor ku ni lii lu leer naññ moom lii muy bëgg def ni amul mutashaaba amulul lëntoo ci moom leer na kan lii lu naññ moom daal day commerce te commerce am bi dara du ko rax mu fexe ba dajale ca loola lu mu takk soxna ab maçon la du jaay bagage yi jàmbur du def dara mu dajale loola ba am ci takk ci soxna muy lu dagan kese mu def lool kooku moo gën fa in lam yajid bu fekkente ne amul lu dagan loolu moom waaja xëy na moom métier ma mu am lenn rek moo ci ne mooy mutashabi mooy lu lëntoog moom mutashabi mooy loo xamante lu lënt la eggul ci xaraam ba mu ni lii moom wóor na ko ne xaraam na mais tamit lënt na moom ni muy amee xaalis est-ce que dagan na est-ce que araam na moom mu góorgóorlu ci loolu comme moom yàlla nattu na ko ba moom munta am xalaal lu dagan cent pour cent l'islam bàyyi ko mu def ci mutashabi jooji loolu nga xamante ne dafa lëntoo ak moom ba dajale ci takk na soxna loolu tamit lislaam may na ko ndax lislaam may na la te ji bu fekkenteen yàlla dafa dogal médd rek moo fi nekk te nga nar a faat sa bakken lislaam may na la nga lekk ci médd moomee waaye heure boo amee leneen nag nga sànni ko kon mbokk yi ki nekkoon ci dars bi mooy seen mbokk seen xarit seen soppi Abdul Qadir Ngom nekk fii ci daara maam alxaaji Rawaan Ngom radiallahu taala anhu ñu gën a xam ci daara ju Nuurul Huda ba